bëgg waxal ki nga bëgg yow général. fii baa ngi leen wax li nga xam ne moom la règlement bi nangu ak la règlement bi bañ. fii li fi am daa war a leer da ngay wax adversaire bi nga bëgg ñu man la koo wax. su ñu la jéem kay rek Eumeu Sène Tapha Tine mooy combat Ibra Touré ko wax. waaw Tapha Tine Eumeu Sène ku ne gis na leen démb bi ñu ñëwee fii ci drapeau chef de l'État ndeysaan ku wane sa bopp waaye ki nga xam ne moom mooy Tapha da ne pare naa pour ñëpp la wax waxul pare naa pour benn adversaire nekku fi di tànn la wax kon bàyyi bàyyi fi keneen ak keneen. xam nga seen daal kay tontu ne bu ñu combat boole rek dinañ bu boole rek dinañ bëree. mais ñor na. ñor na. combat ma seen. ma sekk a ku ma baax na waaye. ah Samba sekk ne ku ma baax na waaye arbitre ne combat bi. moo ja ak rëg nga ne moom mooy rëg rëg. bébé mu ja rëg rëg. rëg rëg moo ngeen moo ngeen mul xonk li. kon moo ruus. waaw bébé moo moo ñu féete ndey joor. ngeen moo ngeen mu vax bi. ndeysaan ña ngay leewaatoo leewtoo bu xaw a diib. ndeysaan mbokk yi dara xewagul ci ñoom ñaar ak amagul lamb fii nga xamante ne nii. teewul ah. la ngay jaar dégg. li la ñuy wax bu lamb dingotee lamb bu dingotee mooy lamb ji fees waykat yi di way amateur yi di teewlu maa ko dégg ci Père Birahim Ndiaye moom a tekki dingoot. san ci moom laa dégg mu ne loolu mooy lamb dingoot na ndeysaan. moo tabu yoof ak Reug Reug bébé moo ca ak Reug Reug. ndeysaan bébé mu ca ki nga xam ne moom mooy Reug Reug. ndeysaan ndeysaan Reug Reug tën ko. mu koy dóor ay coup attention bagar attention attention attention Bébé Mawla Dia Reug Reug attention attention daan na ko dóor na ko bébé rek rek daan bébé rek rek daan moo tax rek rek duma daan ko ndeysaan ndeysaan gars yi loolu mooy li am yaa loolu li am Ilimanel Fall stade Ilimanel Fall bu Diourbel ndeysaan le 9 mai ndeysaan mbokk yi 2022 ñu ànd seen salle production la date exceptionnelle ndeysaan la date unique oh ak Diourbel production bii oh. la ñu doon xaar ndeysaan ndeysaan oh. lii la leen doon wax oh. surtout pas manquer. Oh. Une seule date oh. à, retenir. Oh. Aujourd'hui, à partir de 21h, y 22h.